voyage bi aussi dama ci ñëw xaw a révolté ci li nga xam ne nii noonu la compagnie aérienne yi di traité sénégalais yi xam nga même na réew mu ne respect bi ñu am ci yow respect boobu la ñuy jox say doom yi fa dëkk tey condition yi sénégalais yi di tukkee dafa wane ni joxuñu ñu benn cër ñun ci àdduna bi euh, Emirates laa jël li ma wax ci Emirates mën naa ko ci Air France mm-hmm. ñu jóge Medina ki demb ci ngoon gi àgg Dubaï vingt heures toog Dubaï fanaan ci aéroport bi ba suba gi sept heures du matin soog a départ amul benn compagnie aérienne bu sañ a def loolu Europe wala nga def ko ay tubaab wala nga def ko ay asiatique africain rek lañ sañ a def loolu benn ña waxuma dara nga jënd billet business déjà il faut ñu xam ni ñun billet yi ñuy jënd moo gën a cher ci billet yi ñuy jënd ci àdduna bi par exemple soo jógee senegal di dem Dubaï ak nga jóge dakaar nga ak boo jógee Paris dem du Dubaï c'est presque la même distance li ngay fay business fii Sénégal entre 3 4 ba 5 millions ngay fay boo jógee Paris di dem baay ay 1000 euros 1500 euros au maximum 2000 2500 euros ngay fay pour dem Dubaï donc il faut ñu xam ne ñun li ñuy fay kenn du ko fay ci àdduna bi compagnie aérienne yépp xaalis bi ñuy am yépp Afrique lañ koy jëlee benn non seulement ñooy fay li gën a cher nga fay business dem ñu fat c'est-à-dire waxuma pour sama bopp parce que man même bu ñu woon dañ dem ci hôtel moom man bëgguma dem hôtel parce que après dix ans de Jeune Afrique man hôtel daf ma traumatisé man hôtel rek laa bañ tu comprends même bu ñu naroon yóbbu hôtel man du ma dem hôtel mais am na ñoo xam ne hôtel daf leen arrangé bëgg nañoo dem hôtel noppalu et cetera mais il faut gouvernement Sénégal xam ni tey bu ñu jógee Màkka suñu jógee Jidda wala Médina wàcc Dubaï dañuy fanaanel nit ñi foofu ci aéroport bi ba suba business laa wax waxuma parce que économie sax mën nañu wax da jënd billet business fay 4 5 millions wala nga jënd euh, billet first fay 5 6 7 millions ñu fanaan na la ci aéroport bi. mais loolu yëpp garaaw la avion bi war a dem duñ la dugal mukk ci satellite déedéet satellite ñi fiy dugg mooy ñiy dem Europe ñiy dem Chine ñiy dem Asie et cetera yow dañ lay rangloo nga rang ñu dugal la ci car car kaar bi daw lu wat minutes ci aéroport bi. avion yi ñu lay dugal ma jox la benn exemple bi ñuy jógee Médina ñu ngi cent dugal 380 Airbus deux niveaux avec niveau de confort extraordinaire vol bi deux heures et quelques minutes la ñu dugal la ci condition yooyu ngay jógee euh, Dubaï di ñëw France ñu dugal la ci 777 avion bu yàgg bu bu màggat boo xam ne nii boo duggee ci toilette doo mën a sax yeesal njàpp. ndax amul espace lekk gi ngeen yeeg njaween yi man taxuma ñuy wax lekk gi parce que man duma lekk ci avion mais c'est important ñu wax ko soo dee dem asi wala wala ngay dem Europe wala nga jóge asi wala nga jóge Europe dañ lay jox lekk gu baax gu mat gu neex soo dee jóge nag soo dee dem Afrique business laa wax man waxuma classe économique moi je parle de business nga xam da ngay fay cinq millions pour dugg ci avion bi lekk bi ñu lay jox maanaam cest à plat bi ñu koy présenté rek déjà boo dee ku sedd wala nga kuy sax mën nga koo mën a bañ a lekk ci gàttal donc loolu la Sénégalais yi dund ci ligne aérienne yi alors que boo de et li gën a garaaw mooy may mun a nga départ fii dem Dubaï nga départ fii dem Paris jóge Paris jënd fa billet dem Dubaï moo ko gën a yomb. ah mais Sénégalais nañ def loolu. defal ndànk rek mu wax la defal ndànk rek mu wax la. léegi li ñu war a def mooy euh, du du du du Emirates rek mooy def lii Air France li ñuy def moo gën a garaaw il faut savoir que Air France chiffre am yëpp fii la koy def Sénégal Air France avion yi ñuy indi fii Sénégal muy dem Europe muy dem France ñemewuñ koo yóbbu mu ñemewuñ koo yóbbu Asie par exemple Air France mënuñu mësuñu indi A380 fii Sénégal pour lan te loolu mooy avion yu bees yi mooy avion yu xew yi. Côte d'Ivoire il a fallu que Ivoiriens yi indi problème na leen par force da ngeen di indi avion yu baax wala seen avion dootu fi duggati ils étaient ci la ñuy sóobo yóbbul A380 trois au début dañ naan la noo Afrique piste yi façon avion yi mënu fi wàcc mais aéroportu Diass bi façon avion bu ne mën na fi wàcc